ba tey man dama jàppoon maa ngi ci rêve parce que ba tey maa ngi amoon problème nelaw bi ba tey man gëw ma ni woon li ma dal nii réalité la gone ba ñu tijjee bunt yi dugal ñu si biir dem summi ñu di ñu xool gone loolu yëpp doon loo xam ne nii metti gi mu metti foo ko natt weesu na ko gone gis nga bañ yeggee chambre quarante une ndax fa laa mm-hmm. mu nekk suma première kaso xaw ma woon sax nan la kaso mel parce que fréquenté wu ma kenn koo xam ne ni mës na xam kaso mësuma toog ak nit mu may expliquer mu doon quelque chose boo xam ne lu nouveau la ci sama àddina sama environnement boo ko ci woon. ngoonee bañ tijjee bunt bi ma dugg tak jàkkaarloog ay mbuus jàkkaarloog façon nit ñoo xam ne nii mësuma leen gis sama àddina mësuma imagine am na façon nit yu mel ni ñuy dund ci àddina am na bokk aussi. façon nit ñoo xam ne ni maanaam ñi ngi dundee dundin bi ni mel mosuma gis loolu noonu mosuma ko imaginer aussi. comme comme naka yan façon nit yan dundin. comme surpopulation bi. Mm-hmm. surpopulation bi carcérale bi ñuy jooy. surpopulation bi sur un endroit très étroit nga dugg doon xale. Mm-hmm. Euh, xamoo lu bon xamoo amoo fréquentation boo xam ne nii euh, dafa doy waar nga ñëw si genre bërëb yooyu noonu. Mm-hmm. da réer dama dugg si takk réer xaw ma sax fan laa war a dem xaw ma fan laa war a toog. sama rongoñ tuuru xanaa sama rongoñ tuuru parce que ak loo dëgër dëgër dëgër ak koo mën ci doon gis nga devant l'inconnu doo xam nooy def sa réaction émotion mooy ñëw par force ndax loolu xaw ma ko woon mhm. mais sant yàlla parce que am na ñu ma accueillir mais sama première nuit non mais ngoone <laughs> noo ko passé ngoone euh, guddi jot déjà rek journée bi maa ngi doon xool environnement bi ak nit ñu bëri yi maa ngi doon essayer imaginer mais ñii nan la ñu war a mën a tëddee mais ngoone euh, guddi jot ñu war a tëdd bon bas xam na li may wax baabooy jug jug jug comme ni ñuy tàccoo gars yi jug léegi euh, ñi nga xam ne ni dañ fa yàgg am fa benn période bu yàgg bi en place dem tëddi léegi ñun ñu taxawloo ñu def ñu defloo ñu trois rangs dañuy toog. comme rang wu dugg classe. non waaw quoi à peu trois rangs def nii ñi def nii ñi def nii. léegi dañuy obligé toog parce que chambre bi ñëpp mënuñoo tëdd parce que étroit na étroit boo xam ne nii ñëpp amuñu place bu ñu tëdd léegi ñun ñi nga xam ne nii ñun ñooy nouveau venu dañuy obligé dañuy toog toog bi kenn ki day toog écarté tànkam keneen ki ñëw toog keneen ki ñëw toog keneen ki ñëw toog est-ce que ci condition yooyu nit mën na nelaw ci koo xam ne nii déjà subir nga pendant plus d'une semaine nga jóge ci bavure policière mënoo nelaw jaar ci lii mm-hmm. psychologiquement nga affaibliru ma ñëw toog euh, ba 4 heures du matin j'arrivais pas à dormir ba ni ñuy génnee appel. mënuma comme ni toogee ci image yi nii la wala lii sax moo tane. <laughs> lii moo tane lii moo tane parce que au moins euh, ñii xaw nañ am tuuti espace ñii xaw nañ am tuuti espace mais ñun c'était serré. Mhm. boo tourné sa droite ay nit a ngi tëdd nii boo tourné sa gauche ay nit a ngi tëdd nii te trois rangs lañ def ci digg bi. Mhm. foo mën a nelawee doo mën a nelaw déjà aussi ci journée bi lekk bi. lekk bi ngóone ngóone même un chien sax boo ko joxoon du ko lekk même un laa la wax je le jure o nom de Dieu un boo ko tegaloon lekk boobu noonu du ko lekk mooy lekk bi jóge Rebeuss mooy lekk bi jóge Rebeuss lekk boobu noonu euh, goût bi inimaginable dama doon tooñ sama benn xarit sax naan ko bu mu mënoon am mbuus ba génnal lekk bi jox la ko nga mën a imaginer parce que wax gis nga wax ngóone mhm. boo doon expliquer Sénégalais yi maanaam nourriture beeg tëddin beeg bañ nekkee ci biir dama leen ko doon wax mën leen gis nga bu ñu doon expliquer Sénégalais yi fii ba suba situation yi am rëbës au nom de Dieu kenn du ko xam parce que doo ko mën a imaginer maanaam doo ko mën a scénariser sa biir bopp loolu nga dugg ba gis soo mën a comprendre li ñuy wax. Mhm. mais lekk bi ngoone ngay dem gis nga euh, plus de cent cinquante personnes ci benn chambre hygiène da ngay am problème hygiène c'est forcé. Mhm. est loolu moo andi woon sa feebar. si si. on peut dire ça ak ban genre feebar nga feebar. Ah, feebar bi ñu ngi koy toxoro. toxoro mooy yéen xam ngeen ko. kii toxoro toxoro sax lañ ma doon wooye dem nañ ma wooy toon ñaan ma kunta toxoro. ci biir prison bi. toxoro bon euh, peut-être mën nañ ko metre en rapport ak euh, kii waga ak genre yooyu noonu. mooy ay picc lay nekk si yaram. dafay mhm. jékki-jékki rek. Euh, gis nga au bout de trois mois au bout de trois mois quatre mois da ngay jékki rek sa yaram dafay commencer di génnee ay ay mu mel ni ay picc allergie mais gis nga picc yi. Mhm. benn bu ci toj bu laalee feneen dafay créé waat picc encore. day law day law day law di continuer affaire demoon na ba jàpp sama tànk yi sama ñaari tànk yi ba mënatuma woon dox sama ñaari tànk yi def ay góom ay ngandim góom gis nga sunu waa famille. Euh, bañ ñëwee visite bañ gisee samay tànk. wallahi azim lu ne essayé nañ ko ci àddina contacté nañ ku ne pour xool lu ñuy def ba génnee ma parce que ñëpp jàppoon nañ feebar bi jàpp na ma ba dama jeexoon ba sama kanam gi ba tey dama jeex mais bon dama jeexoon ba sama kanam gi kenn mënu la wax te aussi nit ñi tamit di la daw ci ci biir prison bi parce que dafay wàllaate aussi. ah day wàllaate feebar boobu dafa doon wàllaate. mais ni ngeen di taqaloowee noonu yaa ngi koy wax bu ngeen toggee du am espace. Mhm. bu ngeen tëddee du am espace. donc mhm. bu ko kenn amee est-ce que laal néeg bi yëpp. forcément forcément bas du ma bàyyi ma fen nit ñi dañu lay éviter ci loolu. Mhm. dañu lay éviter. da ngay lan lan lan nga yëg. bi nga mhm. amee feebar bi ñu ne day wàlle nit ñi di la daw. comme que sama dugg euh, li ma yëgoon mooy ba may dugg mooy que ni maa ngi dugg ci loo xam ne mësuma koo xam sama àddina ba ma feebar bi daree tamit maa ngi am sentiment boo xam ne nii mësuma koo am sama àddina. Mhm. mooy nit ñi di ma daw. parce que dund naa ba toll nii macha allah nit mësuma daw sama àddina nit mësuma léegi bu ñu demee ba nga dend ak nit mu naan la puus ma balaa nga maa wàllu tokoro puus ma balaa nga maa wàllu tokoro mais rejet boobu noonu loolu rejet la mais loolu man dama koy comprendre. Mhm. parce que damay xam ne kii daw ma parce que parce que dafa am nu ma mel mais daf may daw parce que dafay bañ ma wàllu ko ko. au fait man nit ñi daw ma kese de dama doon daw nit ñi aussi. Mhm. parce que bëgguma woon responsabilité wu ñoom seen feebar jóge ci man. Mhm. mu gi dem naa ba dama doon xool rukk boo xam ne nii mën naa faa toog man kese te boo demee infirmerie. je pense que ñu bëri wax nañ ko dañ koy waxaat kese. Mm. ñaari comprimé ça sert à quoi. muy paracétamol bi ñuy wax. mais bu am ku am ku am góom bas mi ngi koy wax léegi euh, wax nga mën a am médicament buñ la mën a indil wala mu am médecin boo xam ne la xool parce que ku xam góom ñëpp mës nañu am góom. pour xam ne dafa am soin yoo xam ne daf koy daf koy laal li muy wax nii lan nga ci mën a. doon comme comme ak feebar boo mënti wax ñaari garab lañ lay jox nga dem si yoon sa bëñ buy metti sa bëñ buy metti jëlal naana dem boo ñëwee ne dama am problème lekk jëlal naanal. te même comprimé bi la ci même comprimé bi la man dama foog man xanaa lii comprimé passe partout la. waaw man ma ne ma genre comprimé lii lii mooy lan xanaa lii moom lépp lay faj dem na ba sax ba yow boo feebaree sax ah infirmerie loo toog ci waxati dara. da ngay toog waaw yu gars yi def yooyu defaral la ay limon affaire yooyu noonu naan wooyu da koy faj après ñu defaral la nga naan. Mhm. ñenn ñi di la fompal di jënd mouchoir affaire yooyu di la ko fompal di ci ut ay jetol affaire yooyu noonu di la ko fompal pour affaire yi mën a wàññeeku mujj gi à looloo koy faj. ana médecin bu nekk ci infirmerie bi. mu ngi ci infirmerie bi vraiment ñu ngi jàppale gars yi moom mais. dafa amul les moyens ak garab yu doy wala. garab yi moom doyul. bu dëgg neexee yàlla garab yi doyut. Mhm. parce que imagine toi nit bu dem ne leen sama lii mooy métti xanaa nga mën ko consulter xool ko ba xam yaram bi. xool température bi affaire yooyu noonu. xam nga mais am na ñaari infirmerie nag dafa infirmerie bu nekk euh, sec deuxième secteur am bu nekk ci ginnaaw beneen bu nekk ci ginnaaw boo fa demee nga xaw a sonn dañ xool sa température affaire yooyu mais bu nekk deuxième secteur côté appalaa noonu boo yéegee. Mhm. a dal a dal ñu boo te boo boo leen nekkoon dix personnes yéen ngeen feebarandoo mën nañ libérer leen ci ay secondes. ku ñëw ñu ne la jëlal dem ku ñëw ñu ne la jëlal nga dem ci ay secondes ngeen wàccaat dem. waaw gis nga Ngoné nga ne quatre chaises moo fi nekk. waaw quatre invités nga mën a am nest pas. Mhm. boo fi indee trente invités. xajuñu fi. fu ñuy toog. xajuñu fi. donc loolu mooy justifier ni infirmerie bee. daf fay nekk maanaam xam nga dañ leen ne boo demee hôpital accueil bi kese mun na la may wér gu yaram. Mhm. yow it yow dangay dem pour maanaam dugg naa hôpital rek. Mhm. xaaw a soulager wu mais newut pour faju nombre bi mënul am organisation bu baax mënul am gestion bu baax ndax li war a jël mille cinq cent wala mille personnes mu dem jël ay cinq mille wala six mille personnes. Mhm. saa waaye dara du ko justifier. mun loo fa am ordonnance wala organisation bi nga xamante ne. Mhm. nit ñi nit ñi dinañ si gis seen i bopp. Mhm. bu fekkoon équilibré wu na maanaam nee nañ mille lay jël mu jël mille wala moyen de mille di nga lekk lu tane waxuma lu baax la mais lu tane. lekk bi foofu yow mës nga ko gis. mais man man huit laa def kaso. ñam nga ci. doon naa si lekk avant may changer chambre. Mhm. vingt et un jours fa laa te yenn saay euh, problème bu xaawee am comme dëkk bu yëngoo suñu añ du ñëw. moom ngay obligé lekkaat. mooy bu ñu woowee jagaan. jagan bi waaw ñëpp moom lañuy dóor. lu ñu koy defee lu ñu koy toggee. ma xam en tout cas daal. ay góor ñoo koy togg. waaw muy noonu daal. mais ceeb lay nekk. waaw moo ngoog daal comprendre nga. noonu lay demee quoi lu problème bi mooy lan mooy dañ fa dugal li nga xamante ne xaju fa. Mm-hmm. buñ tabaxaatoon beneen prison ñu jël ñi fa nekk nii rek ñu jël bii ak bee. ba mm-hmm. tey day xat. ñu tabaxoon beneen rëbës ak ñi fa nombre bu fa nekk nii. Mhm. ngay jël ngay wàññi fii di dugal fee ñaari rëbës yëpp ay xat. d'accord est-ce que comprendre nga. donc gestion bi mënul normal di nga jéem nag. Mhm. moo tax jàpp war a nekk exception gis nga Sénégal. Mhm. dafa war a dépasser stade bi ñu nag alhamdulilah quoi biñ duggee kaso ndax ñun nekkuñu muuma muumawu kenn danga ñoo dugal gis nañ. te di wax di ngeen fa gis dañuy wax luñ gis. ba ki fi nar a ñëw ëllëg looy war a njëkk a mooy wut hectares yu bëree bare bare bare bare ca àll bi mhm. def fa kaso tijji fa ay centre yu bëre moo xam ay atelier menuiserie mécanique tailleur leneen ak leneen ku fa dem mu am métier parce que xam nga lu gën a lu gën a lu gën a pire surtout si détenu politique yi nii nga jàpp xale bi nga xamante ne xamul dara gis nga ay mineurs yu génn n'est-ce pas waaw imaginer nga jàpp kooku noonu boole ko ñi nga xamante ne peut-être seen yoon leneen la woon quoi. Mhm. ñuy nekk pendant ay mois. Mhm. xam nga ki ngay toogal chaque jour chaque jour chaque jour les mois mun na am sax yow toogook sa famille temps boobu noonu. complicité bi ngay am ak moom après day dépasser bi ngay am ak sa sa waa famille. parce que yéen a léegi yow kooku nga xëy un bon jour libéré ko pour mu def lan ci biti. pour mu def lan ci biti exposé woo ko. est-ce que noonu nañu war ay traité sa sa sa sa ndawu réew ndaw alal la nekk jeune rek alal la richesse la mm-hmm. am na dëkk yi nga xamante ne dañuy laaj ay jeunes di dugg seeni dëkk pour mën a développer gën a développer ñoŋal seeni seeni économie réew mm-hmm. yow ndaw yooyu noonu nga am xamoo noo leen di exploiter nga denc leen d'abord di leen xont luy suñu njëriñ état Sénégal dépensé ay milliards pour ñuy xëy euh, lekk tëdd lekk tëdd ñu amal ko ban njëriñ ngoone loolu munoon na ñàkk. mais durant pare bi ngeen fa nekkee am na ci ay organisation yoo xam ne dañuy xool ak ak yelleefu doomu aadama am ñeneen ñoo xam ne euh, wàllum privatisation affaire wu liberté yooyu ndax fekk nañ leen yéen ñëpp ku ci nekk mën nga tontu ci question boobu ndax mus na ñëw ci kaso bi pour xool nekkin bi nga xam ne détenu yi fa lañ noonu lañ nekkee. dégg laa ci am dégg naa mës na ñëw am na organisation bu fa mësoon ñëw xaw ma waaye may ñu ko woon accès mu dugg. xanaa dafa am lu ñu fay nëbb. ma ne bu fa bu newoon man. Hmm. duma leen may accès ñu dugg. lu tax parce que nekk ci biir Juan Branco déggoo li mu wax bi mu génnee. te benn fan wax te moom fa. te benn fan la fa def waaw ñooñ buñ ñu génnee tamit loolu la wax ku waxut dëgg wax safaan ba. Mhm. te boo waxee dëgg rek ñoom yi ñu màtt seen baaraam wi cax xam ne amee nañu senegal ax bu mag a mag a mag a mag a mag waruñ ñoo fooy quoi. Mhm. ndaw alal la nañ fonk ndaw. organisation yi fekk nañ la fa. bon man mën naa ne onze mois laa fa def donc organisation yi fekk nañ ma fa. Mhm. un bon jour yi ñëw nañu ubbi bunt bi ñu saytu waaw àq ak yelleefu doomu aadama nekk ci kaso bi seen nekkin affaire yooyu ñoo ñëw nañ gis chambre boo xam ne lu ma ëppee bi bëriwul. Mhm. cent soixante xaw ma nangam personne. nga xool noonu nga ne ñun ñooy organ ñun ñoo yor àq ak yelleefu doomu aadama yi nekk ci kaso bi mais loolu lan nga war a wax. loolu da war a loolu da nga a jom ba nga duggee xool loolu mhm. da ne yaa yor àq ak yelleefu doomu aadama yi nekk si kaso bi mais boo mhm. jógee yow amatoo wax da war a dugg jom jom mhm. léegi ñëw nañ fa expliquer affaire yooyu ma toog di xool xool leen xool leen bañ génn ma toog reetaan ma ne non loo doon reetaan une boo xam ne mu ngi jël presque deux cent personnes nga dugg fa ne waaw après dañuy xool seen condition de vie affaire yooyu noonu di expliquer man ma ne non comment ça fait-il que yow nga ñëw gis nombre bi mënoo génn direct nga kaas.